kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël ay 44 ci suratul qasas ci suñu borom di waxee ni wa ma kunta bi janibi algarbi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaal suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu dajale ci ab néegam ñu fas yéene jël benn bind ci ab téeréem tey jii mooy ñeenteelu fan ci rabiul awal sun maam yi di ko wax weeru gàmmo mu tombeek le 21 octobre mi ngi noonu ci 2020 bi incha allah su dee ne Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk barakallahu fikum a'udhu billahi minash shaitani rajim suñu boroom mu ne wa ma kunta bi janibil gharibi nekkoo woon ca wàllu ko la nga xam ne mooy sowu ga iz qadayna ila musa al amr ba nga xamee ni ñoo ngi dogal jëm ca muusa lii di ndigal ga wa ma kunta min ash-shahidin bokkoo nit ña nga xam ne ñooy seede loolu walakin ansha'na quruna la nga xam ne moo am kay mooy dañoo sos ay maas fa tatawala alayhim al umur mu daldi gudd ci ñoom lool la nga xam ne mooy seen dund ga wa ma kunta saawiyan fi ahli madiyan nekkoo woon di aji sax di dëkkee ca njabootug madiyana tatlu alayhim ayatina di leen jàngal suñuy aaya walakinna kunna mursilin waaye ñun yàlla ñoo nekkoon di aji yónni wa ma kunte bi janibi tuuri id naadayna nekkoo woon ci wetu montagne ba jamono bi ñuy wooti walakin rahmatan min rabbik waaye li yërmaandeel bu bawoo ci sa boroom li tunzira qawman ma ataahum min nazirin min nazirin min qablik ngir ñu waar xeet goo xam ne dikkalu leen kenn ku leen di waaraati jiitu la laallahum yatazakkaruun ngiree kay ñoom ñu nekk di fàttaliku walawla an tusibahum musiba musi bu dul woon ak ne da leen di dal ay nattu bima qaddamat aydihim mu bawoo ca la nga xam ne seeni loxoo ko faggu fa yaqulu rabbana lawla arsalta ilayna rasula su ko defee ñu naan ay yow yàlla lu teewoon nga yónni ci ñun ay yonent fa nattabia ayatik ñu topp say aaya wa nakuna min al muminin ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm mi ngi noonu bokk julit gis nañ ne suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci saar bi nettali nañu Muusa alayhi salaam ba muy jóge ca Madiyana ak la xew ca yoon wa nga xam ne kenn fekkiwu ko kudul Muusa alayhi salaam kese suñu borom subhanahu wa taala détailleel ko ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam loolu moom lay wax fii mu ne day nit ñi war nañoo gëm ne yow yonent bu yàlla nga ndax lii nga xam ne yaa ngi koy nettali bu ñu xoolee la ëpp ca loolu tawraat waxu ko injil waxu ko ca moo ne day ba ñuy woo Muusa ca ndeyjooru tuur ba nga xam ne ma nga féete woon te penk yow nekkoo woon ca sawo ba di fekke loolu li am kay ñun yàlla ñun ñoo sos ay maas mu dem ba dund yàgg ci ñoom ñu daal di soppeeku te loolu itamit mbokk julit loolu mooy li ma sa am suñu borom yàlla heure bu yónnee yonent ba yonent boobu am ñu ko topp ñooñee ko topp bu yàggee rek maas yi ñëw ci seen gannaaw dañuy soppi diine yàlla ci looloo tax yàlla bi mu musalee yonent yàlla nuux ak ñi ko gëmoon ca gaal ba ñoom ñëpp ay jurit lañu woon waaye gannaaw ba nuux ay génération jóge ci moom commencé bokkaale yàlla alag leen musal huut ak ñu gëm ñëpp ñu yàgg ñu commencé bokkaale loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it doon wax ne xeetam bi it ci loolu la jëm looloo tax daana wax ne xayru nnaas qarni thumma lazina yalunahum thumma lazina yalunahum ñi gën ci maas yépp mooy ñi dundandoo ak man gannaaw bés maas nga xam ne moo ca topp ak maas ga ca topp te loolu la ñuy wax ñetti siècle yi yàlla gënale nga xam ne jamono boobu biddaa amul ci diine lislaam ay bokkaale amul ci diine lislaam amma gannaaw ñetti siècle yooyu nag ca la biddaa commencé tasaaroo ca la ay nit ñuy wax laa ilaha illallah ba pare feeñal shirk boo xam ne nii bu feeñ la loolu ngir la koy waral mooy jamono bu yàgg suñu borom ne ko la nga nettali ca Madiyana yit xamal ni du yow sa wàllu bopp yaa dëkkewoon madina bay xam ni waa ji kat woo na Muusa alayhi salaam ba ne ko dama lay may samay doom la xewoon ci biir kër ga yow fekke woo ko man maa la ko nettali loolu day wàññi ne kon yow yonenti yàlla nga suñu borom feddiliwaat ne bi may woo Muusa suma digganteeg moom rek fekke woo ko woon de wa maa kunti bi jaanibi tuur bi may woote waaye ñun ñoo ko def yërmande bu ñu la xamal ngiree nga waar ci nit ñoo xam ne amuñu woon yonent jiitu la te mooy waa Makka yàlla yónniwul woon yonent jiitu leen gëj nañoo gis yonent ci seen maam Ismaïl alayhi salaam borom boobu kon loolu lay wax léegi nag yow jullit tamit lim lay jàngal yonent yàlla bi ak yonent yi ko jiitu woon yàlla leen xamal ni ko yàlla xamale li jiitu woon noonu la ko xamale li ñëw ba ila yawmi din yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis julli na fajar taxaw ca ko minbar ba di wax nit ñi luy xew di wax nit ñi luy xew di wax nit ñi luy xew ba tisbaar jot amul lenn luy nar a xew lu dul yonent bi alayhi salaam wax na ko loolu la ñuy tuddee lenn ci ashratu saa mooy kawtee fii am bi su penc am na yu ci bari yoo xam ne gis nañ ko ñu tudda ko yu yu ndaw ñi masalan ne woon na mujjug jamono jigéen ñi dañuy bari dañuy bari yére ci dañuy rafle dañuy gis mbooloo mu bari jël ay yar di dóor nit ñi ci àndul ak raison alal dana sotteeku ila axiri yàlla wax na ko ba wax ko bis bu mujj ci àdduna mooy dañuy xëy jant bi fenk sow loolu yow lan la lay jural yow intellectuel bi mooy ñu bari ci ñoom seytaane daa dugal ci seen diine ni ah non diine bi mi ngi wàccoon au septième siècle tey ñu sam vingt-et-unième siècle nan la ñuy jëlee jàngaleem septième siècle di ko dund ci vingt-et-unième siècle déedéet mbokk jullit yow yaa am vingt-et-unième siècle amma suñu borom mi nga xam ne moo bind doomu aadama yi bindal leen temps indi leen ci kaw suuf moo wàcce benn programme boo xam ne day valable ba ila yawmi diin looloo tax mbokk diine du xew yi abadan diine situation boo mën a toll yow yaa war a jël sa situation fexe mu dëppoog diine waaye dina da ngaa war a jël diine fexe mu dëppoog sa situation comme tey li président Macron décidé mooy ni ngeen ko waxe woon àllarba ji passé tey lañ def deuil national ca kookee nga xam ni Samuel Pétain boobu nga jëf jëf ju ñaaw la mujj a def ci àdduna jëf ju ñaaw génne melokaan yu ñaaw ci yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen boobu nga xam ni ka nga xam ne moom la gëm benn chrétien bu mel ne moom bind na benn téere tudde ko les cent personnes les plus influents du monde wax ci nit ñi gën a am jeexital ci àdduna bi yonent yàlla muhammad lay def muy première personne ci chrétienne la loolee ñu jël ko di ko caricaturer di ko ñaawal ci kanamu ay xale ngir bañ loo leen diine tey ñu defal ko deuil national booleeg ay mesures yu dul jeex jël nañ ko jàkka tel jàkka tel dañ ko tëj mboolem ñi fi nekk irrégulier ci ay musulman dañ leen génne mboolem ñi fi nangam nangam créé xatta dugal ko ci sport bi fii ba place tel mboolem sportif bi dañuy takk ay brassard noir ñaate milliers la ñuy rey en France mais lu waral loolu mooy pour marquer ci bopp nit ñi ne kii kat soutenir leen ko ndax da doon xas yeneen tib yeneen yeneen tib l'islam bi moo tax ñu rey ko kon waa France yépp war nañ taxaw ci loolu waaye mbokk wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin dañuy fexe yàlla di fexe te yàlla mooy ka nga xam ne moo mat ci ay fexe monsieur Macron ak ku lay jàppale balaa yàgg nga jóge fii yàlla des ak France des ak waa France yàlla moo moom suuf moo xam ci kan la koy donnale moo xam fan la France fan la France du mujjee sa maam bala jiitu moo la gën a intelligent ci di François Mitterrand laaj nañ ko na ko waaw avec la montée de l'isla de l'islamisme est-ce que France du dem ba nekk république islamique mu ne mais si c'est la volonté des Français mi ngi noonu bu dee Français bëgg nañ ko mu nekk république islamique kooku moo la gën a intelligent monsieur Macron ala kulli xaal yéen ndaw ñi bàyyi leen xel loolu seen diine diine la ju ñuy fekki du diine juy fekki waate loolu ngeen bàyyi ko xel bu wax borom bi nag mën a waa Makka bu dul woo nag ne dañoo dama ñëw rek mbugal leen su ko defee ñu ne ah yàlla waroon ngaa yónni ci ñëw yónni ci ñun yonent su ko defee ñu topp say aaya avant ñuy nekk ñuy alku ca loolu it mbokk mooy lay bi yàlla di wàcc ci ay jaamam suñu boroom duyul alak benn xeet lu dul jëkk na ko yónni yonent bu ko leeral ne lii la yàlla bëgg amma suñu delloo gannaaw nag suñu boroom doog a indi mbugalam fa lillahi alhamd yonent bi yàlla yoon ñi def ko rahma moo ñaan yàlla guddig lëmm ay yàlla sama xeet yàlla boo leen alak ni nga alage xeet yu jëkk ya yàlla subhanahu wa taala nangul ko ko waaye ku mucc adduna it te yeyoo woon mbugal mbugal yaa ngi lay xar alaxira yal na yàlla musal ñu ci mbugalu adduna ak alaxira mi ngi doon Cheikh Ousmane
فلما جاءه الحق من عندنا قالوا لولا أوتي قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما هو أهدى منهما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
barakallahu fikum suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne falamma ja'ahumul haqqu min 'indina bam leen dikkalee dëgg gu bawoo ci ñun qalu lawla utiya misla ma utiya musa mu ne amoon aka lu teewoon ñu jox ko lu mel ne la nga xam ne jotoon na ko yonent yàlla musa awalam yakfuru bima utiya musa ama ndax wit bi wuñ woon la nga xam ne jotoon na ko yonent yàlla Muusa xaalu sihraani tazahara ñu ne ñaari njabar rek la yuy dimbalante muy tawraat ak alquran wa qaalu inna bi kullin kafirun ñu ne ñun nag ñaar yëpp lañ bokk weddi qul fa'tu bi kitaabin min indillah neel indi leen ci téere bu bawoo ci yàlla huwa ahda minhuma bu gën a jub tawraat ak injil attabi'uhu in kuntum sadiqin su ko defee ma topp ko bu dee nekk ngeen ñu dëggu fa in lam yastajibu lak bu dee wuy wuñ la ñeel la nag fa'lam annama yattabi'una ahwaa'ahum xamal ne topp ñu lu dul seeni bànneex wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bi ghayri hudan min allah ana ko gën a sànku ci ko topp bànneexam ci lu àndul ak njub ba wa ca yàlla inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin yàlla day du too yàlla du jubal xeet boo xam ne ay tooñkat lañu mi ngi noonu mbokk gis nañu ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci lay yi yéeféer yi di lay mooy bokkoon na ca bi yonent yàlla bi woote ñu ne waa moom nee na yonent la ana lu teewoon ñu jox ko kawtiif yéen joxoon yonent yàlla Muusa Moussa dañ ne amoon na aw yat yu soppeeku jaan Moussa daana def li daana def la suñu borom mu ne waaw yéen waa Makka xanaa du weddi woon ngeen Moussa ak li ngeen di dégg ci moom yépp taxul ngeen gëm ko alxuraan bi mu ñëwee ngeen ne tawraat démb da ngeen doon wax njabar la alxuraan yéen ngeen ne njabar la ñaari njabar la ñuy dimbilente ndax tawraat ak injil am ak alxuraan amuñu contradiction tawraat ak alxuraan ngeen ne weddi ngeen lépp waa léegi kay yomb na kon indi leen téere boo xam ne dafa bawoo ci yàlla boo xam ne moo gën a jub tawraat ak injil su ko defee ñun ñu topp ko bu dee ne yéen wax ngeen dëgg loolu mbokk amul loolu tax suñu borom ne buñ li wuysiwul xamal ne lañu topp mooy seeni bànneex te mbokk ñaari yoon rek moo am doomu aadama bi nekk ci kaw suuf suñ borom mu ne hadaynaahu najdayn ñaari yoon yoon bi nga xam ne mi ngi bawoo ci yàlla mu jox ko ay yonentam ne leen nii laa bëgg ngeen jaamoo ma ko beneen yoon bi mooy yoonu bànneex ak yoon ba num mën a mel ak nuñ ko mën a taarale mooy yoonu bànneex xamal ne buñ la toppul bànneex lañ topp loolu it mbokk juri day won ne amul leneen loo xam ne dañu naan lii kat moom mooy sunna yonent bi waaye lii de moom baax na lee daa bon déedéet leneen lu dul sunna yonent bi rek baaxul buñ bu ko wuysuwul sunna xamal ne ma nga ci bànneex borom bi nag ne ana ko gën a sànku ki topp ay bànneexam ci loo xam ne tegu ko ci njub ko ba woo ci yàlla ca mbokk bokk na bànneex yi gën a kawe mooy li ñuy tuddee bidaa bidaa bànneex la boo xam ne doomu aadama bi da koo jële ci xelam jàpp ne lii kat dana war a neex yàlla gannaaw ba mu ko neexee moom loolu nag suñu borom yàlla mu ne kenn gënta réer ku mel noonu borom bi ni du jubal xeetu toñkat lan mooy toñkat mbokk ab jullit lan moo ko war mooy sami'na wa ata'na dégg nañu topp nañu yàlla moo am droit ci tëral ay loi yuñ koy jaamoo heure boo xamee ni créé nga jaamu yàlla jël nga sa bopp teg ko place yàlla heure bu keneen créé ay jaamu yàlla nga nangul ko loolu teg nga ko place yàlla moo tax borom bi ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diin maa lam ya'zan bihi Allah ndax am nañ ay bokkaalekat yoo xam ne ñoo leen di tëralal ci diine ji loo xam ne yàlla joxewu ci ndigal loolu moo tax borom bi ne alik ku leen gën a mën a tooñ loolu it moo tax ba mbokk julit njaaloo ko bon sangara ko bon rey ñita ko bon waaye li ñuy bon bon biddaa ko gën a bon bokk na ci mbonuk biddaa rek criminel bi naan ko sangara bi xam nañu li mu def baaxul mu ngi ñaan yàlla jëli ko ci mën na am am maa ñu fig biddaa day ñaan yàlla rey ko ci loolu mi ngi noonu moo tax dañ ne biddaa moo gënal seytaane fuuf bakkaar mi ngi noonu ñee nekk ci seeni biddaa te la seytaane gën a kontaan fuuf ñee di njaaloo ko sàcc ko nan sangara gis ngeen loolu kon ñu bàyyi ci xel mbokk julit diine du bànneex diine digg la ak topp digg goo xam ne ci lay yu leer lay jóge ne ci yeneen ci yàlla la jóge gannaaw ba nga topp ko toppiinu na yàlla bëgg ñu toppe ko ay ndigalam mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين barakallahu fikum suñu borom mu ne walaqad wassalna lahum alqawla laallahum yatazakkaruun ñun de jottali nañ ñeel leen la nga xam ne mooy kaddu ga ngiree ñu fàttaliku alladina aataynahum alkitaaba min qablihi ña nga xam ne joxoon nañ leen téere ba lu jiitu ko day hum bihi yuminuun ñoom day gëm nañ la nga xam ne mooy alquran jooju wa ida yutla alayhim heure bu ñuy jàng ci ñoom day qaalu amanna bi ñu ne ah ñun day lii gëm nañ ko innahu alxaqu min rabbina lii mooy dëgg gi bawoo ci suñu boroom inna kunna min qablihi muslimin ñun day nekkoon nañ lu jiitu lii doon ñuy jébbalul yàlla ulaika yu'tawna ajrahum marratayn ñii day ñooy ña nga xam ne des na leen jox seen paye ñaari yoon bima sabaru te muñ ga nga xam ne muñoon nañ ko wa yadra'uuna bil hasanati sayyi'a te dañuy géñe lu baax lépp lu bon wa mimma razaqnahum yunfiqun te lañ leen wërsëgal dañ cey jël di dépenser wa idha sami'u al-laghwa a'radu an anhu heure bu ñu déggee la nga xam ne mooy ay puukare al-laghw mooy lépp lu amul njëriñ ñu ngi noonu a'radu anhu dañuy dumm yu ñeel ko wa qaalu lana a'maluna wa lakum a'malukum ñu ne ñun dey ñeel nañu suñu jëf ñeel na leen seeni jëf salaamun aleykum mucc ñeel na leen mooy ñi ngi ñu ngi doon mucc ñeel na leen la nabtaxil jaahiliin ñun dey duñu topp di sàkku koo xam ne daa réer innaka la tahdi man ahbabta yow dey doo jubal koo xam ne da nga koo bëgg rek walakin allah yahdi man yasha waaye yàlla mooy jubal ku mu soob wa huwa aalamu bil muhtadin te moo gën a xam ña nga xam ni dañoo nekk ci yoonu njub wa ñi ngi noonu mbokk suñu borom mu ni jottali ne kaddu gi la nga xamee ni nii mooy waa makka comme ni ñu yàlla wërsëgali kaddug lislaam yegsi ci ñun loole nekk xiiwal gu rëy rëy rëy doonte ne xiiwal la di xiiwalug nattu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne laa yasma'u bi yahudiyan wala nasraniyan thumma lam yu'min bi illa daxala annar li ngi noonu yahudi yahudiyun wala nasrani amul kenn koo xam ne juif nga wala nga nekk ab chrétien nga dégg ne islam kat ñëw na yàlla yónnee na yonent yàlla muhammad ba pare nga bañ koo gëm lu dul ne boo dee dem sawara loolu mi ngi noonu tey jii ba sunu jamonoy tey ma demoon ci dëkk yu bari am na ci ñoo xam ni l'islam yéggagul ci ñoom te loolu yonent bi alayhi salaam dañu wax it la yasma'u bi mooy koo xam ni xamal nañ ko yonent yàlla yonent bi te na ko yàlla yónni masalan am na ñu bari dégg nañ turu muhammad dégg nañ sax turu l'islam waaye lan moo jiitu ci ñoom la jiitu ci ñoom mooy julit ñi day kaaba gi la ñuy jaamu ko defee ñu wan la ñu ne islam mooy ñuy jaamu kaaba gi mbokk kooku lislaam yéegul ci moom mi ngi noonu saydul xutbu rahimahullah nee na mas na dem benn daje ci Allemagne ay intellectuels yu fa daje woon kenn ci ñoom di ko présenté ne kii moom musulman la musulman yi ñi ngi topp Muhammad Muhammad daa ñëw fekk ay xeetam di jaamu xërëm yu bëree bëree bëri mu jël xërëm bi ci gën a mag muy Allah mu dajale leen ci ñoom ñëpp ngeen mbokk loolu lislaam loolu mi ngi noonu am na ñoo xam ne turu l'islam bi sax mosuñu ko dégg waaye képp koo xam ni diine yegg na ci moom nga lank boo dee sawar nga jëm borom bi subhanahu wa taala nag ni ña nga xam ni dañoo jotoon téere ba day jiitu ko muy tawraat ak injil ñoo jàng gëm tawraat ak injil ñoom day fu alquran ñëwee ci ñoom ñu gëm ko heure bu ñuy jàng ci ñoom aayey borom bi ñu ne ah kay lii mooy dëgg bi bawoo ci yàlla ñun dañoo nekkoon ay jurit li jiitu lii bokk na ci loolu mbokk kii di Najashi rahimahullah moom ak ay notable am keroog ci histoire bu gudd ba Jaafar ibn Abi Talib ñëwee ñuy jàpp leen yóbbu leen ca palais ba Najashi wax ak ñoom ñu xamal ko ne yàlla daa yónni yonent bu mujj najaasi na leen ndax am ngeen ci li muy wax dara kii di jaafar jàngal ko suratu maryam najaasi dafa jooy mboolem labbe yi ko waroon yépp jooy gannaaw ba la jël benn bant bu sew ne wallahi wax ji ma dégg ak la isa doon wax différence bu toll nii sax nekku ci daa di tuub dugg ci lislaam ba bi mu faatoo yonente baa ko jullee ci jumaa ja julli ku fi nekkul mi ngi noonu loolu mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala ni bu ñu déggee aaya yi borom bi day dañu koy gëm ne ñun dañoo jébbalu loon yàlla jiitu li ca loolu it muy jullit jullit dana gëm ab yenent waaye gëm ka gëm gëm kay gëm mooy jaamu yàlla lay doon looloo tax chrétien bi nank ci ne man diiney chrétien yi ci lay dee xam naa ni lislaam dëgg la waaye daal man daal chrétien ci lay dee kooku jaamul yàlla ndax bu doonte ne daal jibbalul yàlla ah yow nangu nga ni muhammad alayhi salaam yàlla ko yónni waaw yàlla yónni na isa waaw léegi nag lu tax nga ne isa la ngay gëm ca doo topp muhammad alayhi salaatu wasalaam kon kooku jibbaluwul yàlla bànneexu bakkanam la topp borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñemel nii day seen pay ñaari yoon lañ leen koy jox ndax lañ doon dund yahud walbati ko dund l'islam wala dund christianisme walbati ko dund islam ñaari pay la leen yàlla di tegaleen te loolu it képp kuy waar ab chrétien na ko ko xamal da ko kaay dugg ci l'islam yàlla fay la fayu christianisme nga doon dund fay la fayu l'islam mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala teg ci ni ñoom day duñu nekk di xuloo ko dagg sante heure bu nit ñëwee indi leen histoire ñoom duñ ko delloo lu dul jàmm gannaaw ba la leen yàlla wërsëgal dañ cee jël di dépensé te loolu it yàlla lënkale na ko lu bëree bëri mooy jàng ab téeréem ak dépensé ca la la yàlla wërsëgal bokkoon na ci abi lahab wala say-say bi abi jëhal dafa am ñoo xam ne nii gannaaw bi jaafar demee ba waar waa Éthiopie am na ay labbe yoo xam ne dañ ne ñoom duñu nelaw mukk ci gis ñu yonent yàlla bi ñu jóge Éthiopie ñëw Makka daa di toog ak yonent yàlla bi mu jàng leen alquran ñu jooy wëlbatiku ba ñuy nibbi ñu dajeeg abi jëhal mu ne leen waaw yéen yéen lan ngeen ah ñun day chrétien la ñu woon waaye tuub nañ dugg ci l'islam mu ne ngeen bàyyi seen diine maam ngir wax yi wax yi yéen a ñàkk fayda yéen a ñàkk fulla ñu ne ko waaw ñu de salaamun aleykum loolu moom la ñu tuddee salaamul mutaraka mooy jàmm goo xam ne pour woon nit ki gannaaw wax ju ñaaw ji ngay wax de ñun du ñu jël lu ñaaw mu ko wax la ko te loolu muy mandarga ibadu rahman mi ngi noonu ida xaatabahum ljahilun xaaru salaama dañ koy wax jàmm rek dem loolu ni ñu fa nekk di dàgg sante loolu ba nga xamee ni nii kon am na suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di dellu siwaat nag ci suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam na ko xamal ne yàlla jëbal ku ko neex waaye yow du yow yaay jëbal ku la neex mbokk yonent yàlla bi aaya bi mi ngi wàcc ci kii nga xam ne mooy abi talib abi talib yonent ba ca loxoom li gimmee xamul baayam abi talib moo ko yar gannaaw bi maamam yore ko diir bu néew à l'âge de huit ans maam ja faatu abi talib moo ko yor ba bi mu woteeg yonent ba li muy nekk lépp abi talib mi ngi taxaw ci kanamam waa makka abi talib dong dong dong lañ ko ruse woon yàlla dogal na abi talib mi ngi sukuraat ca tuubul dugg ci lislaam yonent bi alayhi salaam ñëw na ko ay sama baay e waay dimbali ma rek wax kalimatan uxaaju laka biha inda allah mooy waxal rek laa ilaha illa allah bu ko defee danaa ci dëgg ba ëllëg yàlla tàbbala aljanna ñoom abi jëhal ña nga fa woon ñu ne ko ah abi taalib da ngay bàyyi bay dee nag di saalib di bàyyi diine diine abdul muttalib sa maam mi ngi noonu abi taalib daal di ne waaw moom daal mi ngi dee ci diine yi abdul muttalib loolu tiis yonent bi lool mu ne duma deñ di la jéggalul yàlla féeg yàlla terewuma ko suñu borom jëkk a wàcc aaye ne ko xamal ne njub gi maa ko moom du yaa ci dugal ko la neex waaye man may jubal ko ma neex xoolal aaye yi ci kaw ñee Éthiopie lañ jógee mi ngi noonu ñëw biir Makka ngiree ut si njub ba dugg ñëw nekk jullit Abi Taalib yeneen bi ci kanamam lu juddoo ci la yaroo ci la woote woon wóoroon naka la yonent yàlla bi li muy wax muy dëgg waaye mosu ko feeñal te loolu it mbokk mooy lislaam ki nga xam ne daa gëm ne lislaam mooy dëgg ak bari waaye boo ko feeñal lugul doo julit tant que feeñaloo ko doo julit moo tax ñu tudde ko shahada seede nangam nangam waaye firawna kan moo ko gënoon a xam ne Muusa rasulullah borom bi nee na jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa bi ñuy weddi Muusa am nañ yaqin bu leer ne kii li muy wax dëgg la gu bawoo ci yàlla kon loolu la abi talib def borom bi ne ko nag innaka la tahdi man ahbabta man ngaa jàng feneen suñu borom mu ne ko innaka la tahdi ila siratin mustaqim waaye loolu la ñu tuddi hidayatul bayan wal irshad amul kenn kuy jub lu dul yonent bee koy jàngal nu muy jubee waaye amul kuy jub lu dul yàlla koy may tawfiq mu jub yàlla mooy jubal ku ko neex looloo tax fukki yoon ak juróom-ñaar au minimum julit da nga taxaw ci kanamu borom bi ne ko ihdina sirata almustaqim yàlla yal nag ñu jubal ca la nga xamee ne nii yoonu jubbala ñooñee nag donte na njub ku ne mi ngi koy woote suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo xam ñu jub yal nañu jubal ca boole ña ca jub mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها حتى يبعث في أمها حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون جزاك الله خيرا سنبرم جل وعلا مني وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ay yow yonent bi bu ñu toppee njub gi ànd ak yow kon day daan ñu këf ci suñu suuf si génne ñu fa awalam nu makkin lahum haraman amina ama ndax ñun dalaluñu leen ci place bu ñu warmaal bu am kóolite yushba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ñu ñu fay indi di jël di fa yóbbu meññetu lépp lu mën a doon di wërsëg bu bawoo ci ñun walakin aktharuhum la ya'lamun waaye li ëpp ci ñoom day nekkuñu di xam wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha moo ana ñaata lañu alak ci ay dëkk yoo xam ne nii bewoon nañu ca la nga xam ne mooy seen xéewal ga leen yàlla xéewaloon ci seen dund ga ay batirat fi maishat maishatiha fa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim seen dëkkuwaay yaa ngi kenn dëkkewu ko seen gannaaw illa qalila xanaa lu dul lu néew ca ñoom wa kunna nahnu alwarisin te ñun yàlla ñoo nekkoon di aji donn ja wa ma kana rabbuka muhliki alqura wa ma kana rabbuka muhlika alqura sa borom yàlla nekkul di alak aw xeet hatta yab'asa fi ummiha rasula lu dul ne dafa génne ca capital ba la nga xamee ne nii mooy ab yonent yatlu alayhim ayatuna mu leen di jàngal la nga xam mooy suñuy aaya wa ma kunna muhliki alqura nekkuñu mukk di alak ab dëkk illa wa ahluha zalimun lu dal ni waa njabootu dëkk ba dañoo nekkoon ay tonkat mi ngi noonu mbokk waa makka bokk na ay lay yuñ doon lay mooy yow yonent bi mboolem goxi arab yi fii la ñuy ñëw ci makka respecté ñu lool ngir xërëm yi nga xam ne moom lañu fiy fekk léegi ñun suñu taxawee déclaré ne amul kenn ko yow ñu koy jaamu ku dul yàlla xanaa kon da ngaa bëgg nag ñoom ñu ñëw nag saxatooñu rey ñu benn yoon loolu mooy seen lay borom bi subhanahu wa taala ne waaw xanaa xamuñu ne jàmm ji ñu am ci yàlla la jóge mooy ñoom ñi ngi nekk di bokkaale d'accord teewul suñu borom yàlla may leen jàmm dëkkal leen ci xaram boo xam ne yéeféer yi liñ daan bon bon bon daa nga dajeeg ku rey sa baay nga koy wër ay ati at bis boo dajeeg moom makka doo ko laal fii mi ngi ci biir xaram bi ma dëkkal leen foofu gannaaw ba makka amul mbay et pourtant mboolem liy ñore ci adduna bi ñi ngi koy jël di leen ko indil muy wërsëg bi leen yàlla wërsëgal waaw loolu naka la ñuy nekk ci bokkaale ma defal leen jàmm di leen wërsëgal ba pare ñu wëlbatiku di ma jaamu ma leen di seetaan bañ leen di alak loolu moo tax ba yonent bi alayhi salaam ba mu demee ba am doole ca la ko yàlla digal mi ngi noonu waa makka gis na ki tey bu fa yéeféer duggati mi ngi noonu فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله yéen waa julit ñi bis na ki tey ab yéeféer gum dugg ci màkk gaa yi ne ha loolu catastrophe lay doon ndax màkk foor lay doon ni ñépp di ñëw yéeféer yi buñ ñëwatul fuñ jëm suñu borom ne bu dee da ngeen ragal ñàkk danaa leen wërsëgal ca la nga xam ne mooy samay ngeneel ca na am mbokk keroog ba waa makka nangulee ndigalu yàlla tot xërëm ya fa nekk yépp daq yéeféer ya keroog la xéewali makka gën a yokk waaye bind la boo xam ne ni it yow ndawal julit yóbbaale ko ngalla waay xamal ni la nga nekk ci ay bidaa ak shirk ak bakkaar bul jàpp mukk ne su ma ko bàyyee damay alku déedéet yaa ngi nekk ci lu neexul yàlla yàlla di la wërsëgal bis boo ko bàyyee jëm ci li neex yàlla yàlla double say wërsëg te borom bi nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib su ko defee nekk ci place ñu ne fii day koo xamee ni nii du julli du fi nekk nekk ci place ñu ne la fokk nga jaay sangara nekk ci place ñu ne la fokk bakkaar tel nga def ko nga ne ah su ma bàyyi liggéey bi damay alko déedéet mbokk jullit amul lenn looy bàyyi ca yàlla tax lu dul yàlla wutal la lu ko gën moo tax borom bi subhanahu wa taala wax loolu contraire ba it borom bi wax ne waaw yéen waa makka nee ngeen kat li ngeen di nekk ci xërëm du ngeen ko bàyyi ndax kon di ngeen di alko waaw ana ñaata dëkk laa xam ne alak naa leen et pourtant day ñi ngi nekkoon ci xiiwal yoo xam ne kenn xamul nu ma toll basirat dewoon nañ ngiree lan dund ga nga xam ne yàlla yaataloon na ko ci ñoom in maishataha lu mel ne xaw mu firawn ku ko ëppoon ay xéewal waa saba nga xam ne soriwu leen yéen waa makka ci yemen ku leen ëppoon ay xéewal et pourtant day ba yàlla ñëwee ci mbiram da leen a alak loolee kon lay la boo xam ne nii du lay borom bi subhanahu wa taala nee na seen dëkkuwaay yaa nga ne kenn dëkkewu ko ku dul man borom bi nag joxe garantie ne man day duma alak benn dëkk lu dul ne dama jëkk yónni ca capital ba ab yonent te loolu it mbokk may aada yàlla sunu borom du yónni ay yonent lu dul ca capitalu dëkk ya looloo tax ba bu la yàlla wërsëgalee nga dëkk ci taax yi santal yàlla bu baax mbokk diine ci taax la ëppee ñu gis ne jataay yi ngeen gis ay ndaw tokk seen digg ndaw bàyyi seen lépp dem ca néegu yàlla ba dajaloo di jàng xam-xam ni nga koy gise ci dëkk yu mag yi doo ko gis mukk ci dëkku kaw dëkku kaw diine dafay tumuranke moo tax suñu borom mu ne wa ma arsalna qablaka illa rijalan min ahli alqura musuma yónni lu dul ay góor yu nekk ci capital ya borom bi subhanahu wa taala it mu ne du ma yónni du ma alak dëkk lu dul ma yónni fa ay yonent musuma alak dëkkit lu dul ne dama leen yónni yonent ñu weddi yonente ba suñu borom yàlla ñëw alag leen ngiree tooñ ga nga xamee ni nii tooñ nañ ko loolu mbokk junjoon nañ ko ci biir xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla du leen boole mukk alag leen waaye nag heure bu ko neexee jalla wa ala mën na jël ay dëkk wàcce fa mbugalam lan moo ko waral mooy dañoo jadd yoonu yàlla subhanahu wa taala muy wane it yow julit la nga war a gën a moytu ci àdduna muy tooñ te xamal ne tooñ gi gën a rëy mooy bokkaale ak sa boroom tooñ gi gën a rëy gu doomu aadama di tooñ mooy bokkaale ak borom bi subhanahu wa taala loolu mooy juru alkaangi àdduna ak alkaangi alaxira yal na yàlla may ñu aafiye fi dunya wal axira boole ñu ci ñu gëm ab yonentam gëm ab téeréem yombalal ñu ñu topp yonentam topp ab téeréem mi ngi noonu mbokk julit wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in koo xam ne xamul diine wa ala kulli xaal bokk na ci la nga xamee ne nii sax na ci sunna suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam nee na yawmal qiyaama ñi nga xam ne diine musul yegg ci ñoom ak ñi nga xamee ne nii dañoo doonoon ay dof ak ñi nga xamee ne nii dañoo doonoon ay tëx yu comprendre lu woon dara suñu ñëwee yowmal qiyaama dañu naan ah yàlla ñun dey dañoo amul woon diine bu yegsi ci ñun lii ngay wax ñun yeggul woon ci ñun suñu borom yàlla na leen baax na daal di leen di dajale ci benn place ñu nekk ci milliards yu yàlla xam suñu borom yàlla yónni ci ñoom yonent ne leen seen borom nee na ngeen dem tabbi sawara borom bi nga xam ni moo xam kumpa xam na ñi nga xam ni bu leen yonent yi dikkaloon ci àdduna ñu gëm ko ñoom ñu daal di jóg ni ñun suñu borom yàlla lum ñi digal ñu daal di koy def ñoom ñépp riir dugg tey biir sawara sawara ba suñu borom yàlla def ko bardan wa salaaman alayhim def ko jàmm ak xéewal ci ñoom su ko defee malaaka yi gannaaw ba génn leen yóbbu leen aljanna nga xam ne kon ñoom nangul nañ yenent bi yàlla yónni ci ñoom amma ña nga xam ne yàlla xamoon ne ni bu yenent ñëwoon ci àdduna dañ koy weddi fa la ñuy toog na yenent bi hey waxal yàlla mu sant ñu lu ñu man mënuñoo dem di dugg sawara loolee ngir amuñu ngëm ca mbokku dugg sawara googee yéen ñi jàng wasuma isatil buruj xam ngeen la ko waraloon benn buuru say-say bu bon moo fekkoon ay chrétien ca yaman mu gas benn fossé bu rëy taal ba mu xonq cur mu ne képp ku fi dugg ci diine ji bees ji danaa ko dugal fii taal ko waa dëkk ba yàlla dëgëral seen ngëm góor jigéen mag ndaw ñoom ñépp ñu ànd ne ñoom dee moo leen gënal génn ci diine ñu lakk leen ñuy gis loolu it la yeneen ci bari sam ne yowmal qiyaama noonu lay demee waaye ña dugg sawara yépp suñu borom génne leen ña ca des suñu borom yàlla yóbbu leen sawara wallahu subhanahu wa taala aalam naam cheikh subhanahu wa taala
dégg na ci diine jàpp naa ne dafa ñàkk foofu ndax moom bëgg dund si naam tax na mbaal moo ne anak moom dégg na moom daanaka àgg na ci daal ni moom ëpp na bidaa du leen nuyu ndax que jàpp na rek ku duggul si na warul laa nuyu war sa jëflante yow muamala xasan ndax loolu boobu soxna daal diine moom moo def moom la war a def ndax nit ki xam sunna mën naa yegge ba naan taral ba naan nit ki nit yi kuy dund bidaa du ko nuyoo kaza wa kaza déedéet mbokk loolu kooku xamul luy sunna mbokk sunna dafee tumuranke nit ñu bari xamuñu ko su ko defee nit ñi dañ leen a war a woo ci suñuy wax ak suñuy jëflante laayante ñoom ak biir leeral leen jàngal leen loolee da ngay gis ni moom la lislaam di woote waaye wootewul abadan nit ñi nga dëddu leen won leen gannaaw problème bi daal mooy ku la woo ci shirk bañal ku la woo ci bidaa bañal bu ci masla ak ñoom abadan amma lépp lu jëm ci jëflante bu rafet rawatina say mbokk ak say dëkkandoo loo man ci loo rafet woon leen ko loolee ñu bàyyi ci xel bu baax amma dudd wane gannaaw ba ñu nuyoo ak yu demee noonu loolee mbokk ak réer la falilahi alhamdu yàlla nattoo woon nañu fii ci quinze ans yi jëm vingt ans ci gannaaw fitna yi li ñuy tuddee al al waa bay a ñoo xam ni suñuy ndongo yoo xam ne nii dañuy nekk jàpp ne borom xam-xam yu wax yépp dañoo réer mi ngi noonu kenn du leen nuyu kenn du wax ak ñoom loolee tasaare woon ni fii jàkka ji buñ daan tafsir fee lañ daan réunion ci buntu jàkka ja suñu paree jël seeni kaset am na fu ñu daan daje te lu nekk aaya par aaya di critiquer lu nu ñu def ko gannaaw yàlla moo bañ ne kon imam Aboubacar Sall ba tey mi ngi ci kaso bi ku mel ni docteur Mouhamed Lo moom dama koo jëlale ak yeneen ak yeneen fële alhamdu nag yàlla delloo na ko gannaaw à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay poche yu ndaw a ndaw lañ ciy dégg ci ay gox ci Dakar mais lu ndaw a ndaw la waaye daal yow ndawal jurit bul mel noonu keroog bi nga commencé dund sunna na sa bàyyi doog a xam ne maa ngi doog a am bàyyi say dëkkandoo xam ne ñu ngi doog a am dëkkandoo mooy loo doon def ci lu baax yokk ko multiplier ko woo ko ci ñoom moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan waddu ila rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana wa jadiluhum billati hi ahsan juritam lépp taar la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw mu jënd ko ci xaalisam def ko nan ah wala ku li xaal loolu ci baabu dimbalante la ne su doon te ne mais bi mu convaincre na waa ji ba mu bàyyi jaay cigarette wala ku li xaal bu doon te ne daal waa ji dafa yor cigarette am mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga bàyyi jaay cigarette mu ne ko waaw ah waa mii lii ma yor su ma paree danaa ko jaay mu ne déet bu ko jaay keneen jaay ma ko man mu jaay ko ko mu taal ko loole moom lu baax la am maa nag jënd la fa nekk ci tuubul booy demee mu jënd yeneen indi teg waaye daal bu doon wóor na ne ne moom soo jëndee cigarette bi wala nga jënd sàngara si yàqu ko moom dana bàyyi loo ci mën a dépense jar na ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam kaamil alquran bi nga teg ci suuf bu dee ne ci jàkka jee tax ñuy wax teguñu ko ci suuf ñoo ngi ko teg ci kaw tappi bi bu dee ne daal fi nga toog foofu nga teg kaamil bi loolee nekkul lu ñuy bañ ki lal deram teg kaamil bi ci deram lal sujaatam teg ci kaamil bi loolee bañuñu ko bokk ñu daal lenn lu ci borom xam-xam yi di sib rek mooy yow nga toog ci kaw jël kaamil bi teg ko ci suuf loolee mi ngi noonu waaye bu dee yow fi nga toog nga teg kaamil bi loolee moom dara nekku ci mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam xanaa la ñuy moytuloo rek bañ a jël kaamil yi di ko jàppee place mbokk kaamil màgg na màggay goo xamee ne nii pa doomu aadama warul xalaat di jël kaamil di ko jàppee place jàppee place déjà jaaduwul gannaaw ba bu ko defee kaamil bu dee munta ñàkk munta ñàkk utalay bant wala ngu loo xam waaye kaamil bi màgg na màggaay goo xam ne kenn waru koo jël ngir jàppe ko place wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa ngeen baal ma mujj ci mbokk bi rek waaw bismillah mu ne huwa ahda minhuma mooy indi leen téere boo xam ne moo gën a jub tawraat ak injil comme dañ na tawraat njabar la alquran njabar la ah ci ku am xel dana xam ni la nga war a jaamu yàlla ci yàlla jóge moo tax mu ne nee leen ñu indi téere boo xam ne moo gën a jub tawraat ak injil su ko defee ñun ñu topp ko waaye borom bi lam ca teg mooy xam nañ ne duñ la mën a tontu loolee kon mi ngi noonu ah ah ah te tawra ak alxuraan lañ koy delloo tawra tawra ak alxuraan lañ koy delloo mooy indi leen téere boo xam ne moo gën a jub tawra ak ak ak ak ak ak alxuraan naam waaw kii dafay laaj mu ne borom xam-xam yi dañoo juyoo ci noddu ci napp liir lan moo cay la dëgg lan moo cay la gën a not ala kulli xaal maanaam borom xam-xam yi juyoo nañ ko borom xam-xam yi juyoo nañ xalaas problème bi mooy dina ni yii ci masala yi gën a sew ca la bokk mooy noddu ci napp liir yaakaar naa ci tafsir yi pass sax wax nañ ko ci mooy ñëw na ci ay ahlu sunna boo demee ko mel ni ibnul jawzi ci tax téeréem boobu nga xam ni tuhfatul mawlud da cay saxal ni doom dañoo war a nodd ci ndeyjoor liqam ci càmmoñ ñu ne loolu da koy musal ci seytaane ñu dem ba yàgg cheikh nasir albani génne ay téeréem yi wone xadis yi wér yi ak wérul moo génne ci ni nodd ci nopp ndeyjoor loolu muy sunna waaye liqaam ba loolee moom xadis ya ca rot xadisu daif la loo mi benn ba mu demee moom ba ci mujj dundam mu mujj génni ne xatta nodd bi sax xadis ya ci ñu wérul moo tax gis ngeen complication boobu kon loolu mbir la boo xam ne ay sew-sew la yoo xam ne yow ndawal julit boo yeggee ci niveau boo jàng loolu ba gis di tudd doom wala yor doom noddoo ca loolu sa niveau ba nga xam la waaye li ñuy bañ rek moytul nga dem gis xatta ay magi ahlu sunna di jël doom di nodd ci nopp ndeyjoor ba di liqam ci nopp càmmoñ ba nga jàpp ne di leen xeeb ci xam-xam ak yooyu déedéet loolu masala yu gën a sew la yàlla fekkee na ma benn jataay benn discussion fële ci kolobaan kenn ka ca ñoom sax mi ngi laaxira keneen kii léegi mag la masala boobu ci la ñu dem ba seen dënn xaw ci tànk ala kulli xaal daal yi ay sew sew la koo xam ne nii lii doy na ko xayrun koo xam ne leneen doy na ko xayrun la ci nekk rek mooy lépp looy def na sell fekk yàlla tax ngay def bu yàlla taxee ngay def ñaara mën a am la nga def dëgg la nga am ñaari tuyaaba la nga def da ngaa juum nga am benn tuyaaba comme na ko yonent bi alayhi salaam waxee li bon daal mooy topp banneex yal na yàlla musal ñu ci topp banneex te boole ñu ci ngërëmum adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain